mbas mi duggee ci réewum Sénégal ak léegi gis nañ ni yëngu-yëngu yu bari dañoo daal di taxaw waaye ñenn ñi ne ñàkk a bañ a def dara du leen tee tàngal seeni yaram maanaam di entraîné wu ñu ñu fekk sa plage bu Géejawaay ñi ngi àddu di ñu xamal. xam nga tamit maanaam toog rek moom mooy lool liggéey comme liggéey amul te dëkk bi fi mu toll nii li fi xew yaa ma gën a xam comme liggéeyun suñu liggéey yëpp taxaw na sooxee na moo waral ñu ñëw ci géej gi di tàngulu am dafa tàng. léegi tàngaay moo waral ñu ñëw ci géej gi nii di féexlu di entraînement mais bu ñëwee it du tax bu ñu nekk ci biir ci tefas gi sax duñ ko jege dañuy nekk ci kaw kii bi rek ci montagne yi noonu entraîné. waaye am na ñenn si ñoom ñoo xam ne fonkuñu lii di takku masque mi ak distance bi. boo xool nag fii moom daanaka gars yi respecté wuñu ko parce que entraînement distance yeeg yooyu yëpp gars yi kii ko quoi parce que tamit entraînement bi ak yooyu xam naa moo leen di jàpp seen tàngaayu yaram yi ba duñ ko respecté. dajale moom ñu ngi koy moytu parce que man bañ naa ko ba ñun sax bi ñëwee ñun ñii dañu nekk di football ñun dañu nekk fële daw suñuy daw ñun ñun bokkuñu ak ñeneen ñi nga xam te ne nekk di football ak dajaloo beeg yooyu bañ naa ko koy andaale waaw waaye gis nga man fi mu toll ni nga may gis nii man respecté naa mesure barrière mais nag gars bëree bëri moom takkuñu masque moom respecté wul mais man moom wax dëgg yàlla fu may demee man maay sama masque. na ci ñoo xam ne respecté wuñ affaire yi mais ñun moom wax dëgg yàlla man sama waa koñ boog ñun moom respecté nañ ko parce que vraiment xam nañ li ñu gars bañal. waaw des nag police ñëw fii dàq ñu gars daw. waaw dañ ko ci am dañ ko fi am trop des fois gars yi ñëw fii dàq ñu gars yi daw. non mais tamit bu la waxee tamit li nga xam te ne tamit moo yoon nga nangu ci ànd ak ñoom ci li nga xam moo nekk. du dëgg comme loi moo santaane te ñooñu tamit doo teggi loi da ngay ñëw ànd ñoom ci li wax du dëkk takk yi ñëw nañ fi nag di di dàqante gars yi affaire yooyu mais ñoon ba ma ñëwee fekk ñu dàqante gars yi man moom dama waññeew dama ne sama gars yi kaa leen waññeew ko parce que ñii jàmm rek lañ ñu bëggal waaw boo fi nekkee di dàqanteeg ñoom daanaka yaa ngi bëgg indi fi na yaa ngi tooñ njiitum réewum Sénégal gi lépp luy état d'urgence ak couvre-feu waaye teewul mu wax ne ñu fonk li nga xamante ne nii moo di mesure barrière yi ba sax ñuy fàttali askan wi ñu gën a bàyyi xel ndax jàngoro ji mi ngi wéy di lëmbe suñum réew